daa xaw sori quoi dafa sori. Ibrahima Ibrahima bala gaa yi gisee yaa ngi filmé rek. waaw ñuy fay daa ñuy fay diwaan boog bii. waaw xam nga téléphone. gisoo ñii. Eh, jël ah, bul teel a de. Eh, bul teel de gars yi bi egg si bato bi bàyyi la ñëw. la quoi ndeysaan gisoo bato bi voilà bato nii di ñëw bato baa nii bato bu weex nii est-ce que du marine bi sax marine bi la da ngay nal ban kenn de eh jox leen bidon bidon ndox yi comme ni gars yi waaw jox leen bidon jox leen bidon yi jox leen bidon eh. Zé Zé jox ci gisoo comme ni gars def. bidon jox leen bidon. boo ni yàlla ñi yëpp ñu jàppee ci gaal doo ko fekkee. oh oh oh. Zé dafal nii de. jëlal lu am rek